soo déggee ñoo nañ delluwaat ci yàlla ñaan ko def nañ ay dañ fa wootu na jóge ndax wàcc moo gën a wóor cëppeelu cëppeelu moom lu ne la ci lay dale nit ki mooy laata li mu dugg di àgg mu bëgg a wàcc te taxawut lu ne mën na ko caa dal waaye na nem yam ci loxo balay la mu duggoon taxaw ne rimm mu door a wàcc ku koy def ñaare liñ koy seeti noo fanaane du bari yàlla nañu ko yàlla jàppandalal su ko defee nag bis boobu ñuy natt euh, ñax gu wow dafay lakkaale gu tooy mooy ubbiku gi àdduna bi am léegi nga xam ne ñii dañuy dem ba mujj yaakaar se fab seen mbir wékk ko ci seen moroomum jaam fu mu jëm ñu jëm fu lu mu wax ñu ne dëgg la ba tax jàpp xamuñ njuumteem lu mu dugg rek ñu dugg ca moom day diig diigaale leen te moo ne mënoon nañ ko ne déet loolu deesu ko lekk njugub deesu ko lekk deesut lekk ci jamono ji ñu toll seen ndax donte daa dañ ko layal naan am na ca xeet woowu bët bëtóor dana faj di di faj laa dañoo xiifoon dong waaye buñ gisee diw ñoom di ko def rawati di ko lekk muy dund léegi tey ña leen naw tàmbali ko def musiba ma du yem si bopp boppu boroom yi yàlla wax ne bu ko kenn lekk bari na ci yoo xam ne neex naa xàmmee jurul jàng ba ne ar gépp jur goo xam ne par benn nga cay gis te muy jurlu ne gàññ doo leen gis ñu ànd mukk duñ ñooñ yiw kese kese ndax ñooñu dañuy lekkante ñaare ku ci néew doole sa moroom lekk ko moroomam lekk ko waaye yi nga xam yàlla dafa digg lañu di lekk moom ñi ngi nii par benn la ñuy jur te léeg-léeg ñëpp soxlaandoo leen te ñëpp leen di amanoo loolu moo tudd barkeel ñee dañ naan gàññ gàññaar waaye barkeeluñ barke amu ca ku cay jur benn néew na te doo gis mbooloo àndandoo ca waaye yii nga xam ne moom nee na lekk leen ko du joxañ mukk fa dara nekkut bu ne lekk leen ko rek du ma sa jeex ndax moo ñu gën a xam suñu lim ñaata la luñ ca soxla rek dañ koy am takk bu yomba takk la te mën a dëgër su ko defee nag gannaaw am na ñu jóge woon fa seen borom bañ naan delluwaat delluwaat leen fa nañ gaaw wàññi ko ndax ñoom kat ci ñoom la yaakaar des ñu nangu woon amuk suñu borom gi ak coobareem ak kattanam xam ne gëm ne mooy kii dundal mooy rey mooy dekkal bu ëllëgee moo yóbbu nit aljana moo ko yóbbu safara foofu kat la yaakaar des ndax am na fu wéri di dugg foo xam ne fii yàlla sax gëmuñ ko lañu wax yàlla amul nuñ mujj def àndandoo doon mbooloo mu bari di ñu am maanaa ñu xam ci àdduna bi dugg ci jàkka yi ne jullit yi ñaanal leen yàlla li ñu dal teg wàccu ñu kon jullit yi fañ tegoon seen tànk buñ ko teggi nañ folli seeni nopp te fal seen bët ci lan fa leen yàlla joxañ foofa la jàmm di nekk ñun ñi di doomu aadama yi nag ñu am jagle koo xam ne dañu ko am wutale ko rab yi rab mooy bàyyi may rek yi dox ak dikk waroom xam-xam yi jiwoon nañ ci ne nit rek la yàlla sàkk dara sàkk ca nit def suuf sàkk ko ca yi ci des yëpp amuñu cosaan su ëllëgee da di jëri ñu naaw mu jeex topp leen dara waaye nit moom daf ko wutal fondement bu dëgër la cay firnde mooy nit taxaw ci kaw suuf si dox rek la fi la xelam di dale doonte géej gi ci kaw suuf la nekk nekk ci biir géej gi léeg-léeg mu tiit ba day bëgg a wàccaat ci kaw suuf si nga xam ne fa la cosaanoo fa la xelam di dale ci misaal euh, nit dana dugg ci fafal naaw avion muy naaw ci kaw jaww ji te fekk mi ci kaw suuf sax ndax jaww ji boo ko wàccee suuf si ngay dugg waaye bu karang-karang baree fit bi dem li muy ñaan mooy wàccaat ci kaw suuf si su nekkee ci géej gi fenn fu nekk di jax fit wa dem lu mu xam dana ci dugg li muy ñaanaat yàlla mooy wàccaat ci kaw suuf si ndax foofu la ko yàlla boole fa la ko yabal mu war fa liggéey yabalu ko ci ndox mi yabalu ko ci jaww ji moom la alquran di wax ne fa ida rakibu fi lfulki daawu llaha muxlisina lahu diin mooy buñ jaqee luñ dugg muy naaw ci kaw wala muy dox ci ndox mi dañuy tiit dangay dégg ñëpp naan yàlla ak làkk wa muy làkk bu ne am na yàlla nu mu ci tudd waaye waxut yàlla caaxaan yii de yàlla dëggantaan lay wax ki mu yaakaar ne moo koy musal ñun nag daf ñu saa fekkoon ñun jullit yi ñu gëm loola gëm ne ku ne ci kaw jaww gi sax bu ko fa yàlla soxlaa jël ko mu ne ci ndox mi xamutum ndox noona mooy wa ida gachiyahum mawjun ka zulali daawu llaha muxlisina lahu diin fa lamma ila albari fa minhum muqtasid waaye wa maa yajxadu bi ayatina illa kullu xataarin kafuur nee bu nit nekkee ci kaw asamaan si wala ndox mi ba wàcc nag ñaan gone mu dugg si ba wàcc ne xamoon naa ne danaa wàcc tàmbalee dëkkat suñu borom bëre wala man najahum ilal barri ida hum yushrikuun li yakfuru bima aataynahum wa li yatamattaau fa sawfa yaalamuun buñ taseeg man ëllëg danañ xam ne yàlla du caaxaan te caaxaan lu wut su ko defee nit yàlla da ko bind ci suuf gannaaw bu mu amalee suuf wàcce kowaat fi suuf bëgg mu dundal suuf si ba noppi mu nekk fi xalifab suñu borom ci kaw suuf si euh, mu am fi liggéey ñu joxoñ ko fee nekk ko wanal gannaaw fële ñun jullit yi nag am nañ ci wàll suñu demee ba suñ suñ mbir ajutuñ ko ci yàlla ndax nee na ñee gisuñu ko dégguñu ko waaye alxuraan a ngi fi ajutuñ ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mu wér waaye daal lu du ñoom nekk baax na lu du ñoom def wala ñu jaar fa aw yoon la ba diw ñoom dugg foo xam ne mënatuñoo génn duggaale ñu fa ñun nañ teel a ko ndax am nañ fuñ jëm muy yàlla yàlla nu yàlla wallu ci kattanam gu réy ga ak coobareem ja xam ne suuf si ñi fi nekk ñu nangu ak ñu nanguwul ñëpp ay jaamam dong lañu e, ñi fi nekkit mënuñoo mel nen lu dul doon jaam yàlla ku ko nangu ku ko nanguwutu ci yam ñi ngi koy ñaan mu e, am lu mu seet donte sequt ak kenn dara lu koy yëgloo leen mu xam ne moom am na ñu fas yéene toog fii kaw fi kaw soosoom di ko fi jàmm ba faw mu rus pas-pas boobu ñu am donte inna allaha la yastaxyi waaye daal mu bàyyi leen fi ndax fas nañ yéene nekkal ko fi doon ay xalifaam waaye fas nañ fi yéene nekkit dundale ko suufam ci niñ ko fi dundale mooy jaamu fi yàlla jaamu ko fi ci nem ko santaane yàlla na ko dégg te yamale fi mbas moomu moo xam ay jullit la dal wala du ay jullit moo xam ay wóor la dal wala ay baadoo la moo xam ko am la dal wala ku yorub dal te fam yemoon dal yàlla bu mu ko weesu ñaanoon nañ ko ñaanante ko fi ñi bari di ko ñaan mu di ko weesu loolu dara ci suñu borom ndax laa taqnatu min rahmatillah ñaan la santaane nañuy ñaan rek nañuy ñaan ndax nee na ku dem ba ne yàlla jërtata ñaan te ñaan bokk ci jaam jaamiinu yàlla yi dana ko jëflante ak moom ud'uuni astajib lakum inna alladina yastakbiruuna an ibadati jaare ko ci ñaan sa yadxuluuna jahannama daaxirin yàlla na ci yàlla musal kon nañ wéy di ñaan fa in fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daani fal yastajibu li wal yuminu bi laallahum yarshudun yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp te mu seytaane ke pakkam yaxfiru llahu lana wa lakum wa lisaa'iri lmuslimina amin